su ko defee ñëpp toog ñu kontaan bu baax ci teewaayu sunu maire monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye yàlla fay na Sëriñ Bamba tey Sëriñ Bamba mooy maire bu Ndar kon ñaan ñëpp toog ñu tàmbali waxtaan bi su ko defee am na yeneen kilifa yu ñëw waaye kilifa buy ñëw. nañ ko may ba mu toog ña ma dem toog te bàyyi kilifa gi ñu topp kooku su ko defee rek lépp dana sotti nekk ci aw yoon sëñ ci bi moom Cheikh Ibra Ndar rakkam muy jigéen ñi ñi ngi nii ak madame yeeg bokkam yeeg ñëpp wuy si nañ ko. sëriñ bi la mooy maam Cheikh Anta te maam Cheikh Anta mooy sëriñ lii foofu mais xoolal dafa la toog kon ñaan lii kay gars yi ñu toog di ma laaj ñëpp déglu ñëpp déglu yegg suuf moo waxoon allahu akbar ci kanamu ñi fetteerlu ci kanamu yàlla ni ñoom rek la cheikh ahmadou bamba moo defoon li boromam bëgg te yàlla sax naka ñu xam ni mooy laa ilaha illa allah faalam annahu laa ilaha illa allah kon bés bii tey ñu koy bége di ko ndokkalante sunu biir ci teraanga ak xéewal ak ndam li yàlla mayoon islaam ci kanamu fétterlu ya muy le 5 septembre kon maa ngi nuyu tey màggal sunu mag سنو كليفة مولانا الشيخ ممور ابن الشيخ محمد المرتضى الإمام الأكبر نكاي ندوكل تي تورم ديك زياره اك اسكنو مبكي ييب خليفه العام السيد الشيخ محمد المختار دي سونو ماك دي سونو سوبي ديكي دوخال تو دوندال لي مولانا الشيخ احمد بامبا اك دومم دي سيرن محسن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس syajaru yasjudan mbir murah rafete ñu ne dafa ala dawme ya. waaye dama naan mbir mi tey dafa ndare ndax ñaari mbir moo tax mu ndare bi ci jiitu mooy dañu boole guddi cheikh ibra fall ñu tuddee ko sëñ ablaye fall ndar guddi Serigne Touba ñu tuddee ko Serigne Ibrahima Ndar ñaar ñooñu am lu leen lëkkale ci baatin lépp ci jëfi Serigne Touba ci jaar gi mu jaaroon Ndar ñoom ñaar seen mbir dëppoo ñoom ñaar kenn ku ci nekk nekk sa xalifa waajur sa troisième xalif Serigne Ibrahima Fall Ndar moo nekk troisième xalifa Cheikh Ibrahima Fall Serigne Ibrahima Mbacke nekk troisième xalif Maam ñaareel bi lu tax mu ndare te moo ci gën a yéeme mooy maam Cheikh Anta ñu ngi ko tuddee woon guddi gi 1985 mu dixième édition 28 ans après ñu tuddee ko Serigne Ibra Ndar te 28 kenn ku ne xam na la ngay la muy symboliser ci lislaam ak la muy symboliser ci mouridisme. ndax mm-hmm. moo mooy uruf Tuubaa kon nag. diggante Maam Cheikh Anta ak Serigne Ibra Ndar lépp Serigne Touba waxtaan ci sa waajur nag lu jafe la waaye bu dee ci yoonu murit lu yomb la ndax ñun amuñu waajur sëriñ rek lañu am te li ñu fiy def du waxtaanu xam-xam mais taarix rek la loo xam ni xamale kan mooy Serigne Ibra Ndar bu dee ci wàllu baayam ñëpp xam nañ ko bu dee ci wàllu ndeyam ñëpp xam nañ ni ndar la dëkk waaye xamuñu nu mu dëkkee ndar ak ñi mu bokkal ci biir ndar kon buñ ci waxtaanee danañ jël tënk waxtaan wi ci ñetti point wala ñeent bi ci njëkk mooy fi mu bokk ci ndar ak ñi mu bokkal ci ndar muy waajuram mu jigéen muy ak ndawam fi mu jàngee fi mu jaar ñaareelu tomb bi ñi mu jaxasoon ñi mu jaxasoog Serigne Touba ak waa këram jaxasoo koog maam Cheikh ak waa këram jaxasoo koog taalibe ak jullit yi ñetteelu tomb bi muy jëf bi mu jëf ci yoonu murit jëf ko ci société bi ci jëriñ ko communauté islamique ak communauté mourid wax ay jikkoom ak wax ay melokaanam yi nga xam ni ñi tax ñu tase fi danañ ci mën a jële loo xam ni danañ ko ci roye ndax yaakaar nañ loolu mooy objectifu jël guddi gi di ko tuddee kilifa kon bu ñuy tàmbali ci wax ni sëriñ ibra sëriñ gaawa ko jur rek dafa matlet ndax sering gawan kenn ku ne xam nga limu mu ci yoonu murid ak limu fi jëf ak limu mu liggéeyal sëriñ tubaa mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn bàyyi waaye mu njëkk ci mbokk yi tàllal ko loxo ne ko aslamtu nafs waaye waa ndar dañu bëgg xam ibra fan la bokk ci ndar ak ñan la bokkal ci ndar ndar ñu bari dañuy faral wax janoor ak ci la bokk waaye du ñu mën a jàll bu ñu mën a xam kan mooy janoor ak kan mooy Mariam ak ku leen jur ak ñan lañu jur ak ñoo ñooñu ñan ñooy seen njaboot janoor ak Mariam ñaari seex lañu woon ñu bëri xamuñu seen waajur waaye Fara Njaay moo leen jur moo tax ñu naan janoor Njaay Fara ak Mariam Njaay Fara ñu doon ñaari seex doon nit ñi yiw te sell Mariam Njaay sëy ku ñuy wax Ahmadou Diaw baatub chimère bii ngeen di dégg foofu la jógee Ahmadou jaw nag képp jur mooy ki ñu daan wax Yérim Mbagnick kooku ñu xam histoire xëy na Ablaye Mbaye mi dana ko xam Yérim Mbagnick moom lañu daan wax Sénégal ndax ku ne ci senegal bokk nga ak moom. dina mun kooku moo jur Ahmadou Diaw Ahmadou Diaw baatub chimère fa la jóge moom lañ njëkk a dàkkantele chimère ndax lan ci jamonoy siñaara ya kooku dafa rafetoon. njool xees rafet am taar bu rafet ñu naan il est beau comme une chimère fa chimère jóge Ahmadou Diaw boobu am juróomi doom ku ñuy wax Guigui chimère Anna chimère Kati chimère ak Maritou chimère Guigui chimère dafa sëyeeg ku ñuy wax Mbagnick Fall kooku moo jur Mëtëw Fall Anna chimère moom moo jur njaay ja mu jur El Hadji Doudou Dia kati chimère moo sëyeeg ku ñuy wax Ahmadou Tall mu jur Ablaye Tall Ablaye Tall jur Ibrahima Tall Seynabu Tall Roqaya Tall Rama Tall Khady Tall Boubacar Tall Lamine Tall Tidiane Tall ak Malle Tall Ibrahima Tall ñëpp xam nañ ko bu nekkoon maire nekkoon directeur bendes nekkoon euh, ministre nekkoon gouverneur kooku la ñu tudd Ibrahima Tall mi caatu Serigne Ibrahima Seynabou Tall moom lañ moo doon rakkam moom lañ tuddee bu Mbacke mii Roqaya Tall moo jur Aboubacrine Bey ñoo seenoon fii léegi ancien directeur général SIB ancien directeur général des douanes xaditaal moo jur Boubacar Diallo mi nekkoon ancien ambassadeur ramataal moo jur Ibba Ndiaye ak Saada Ndiaye boo jógee boo jógee ci Kati Diaw Chimère nga jëw ci Mary Teuw ñaari doom la amoon Souleymane jaw ak Saada Diaw Saada Diaw moo jur Kati Diaw Chimère mu jur Aji Maru Ndiaye mu jur Adama Diop mee toog fee Souleymane Diaw moom moo jur Ndey Amsatu Diaw ndey dëggan jaw yaasin jaw astu jaw faat jaw seynabu jaw dut jaw dut jaw chimère jibi jaw chimère ak ablaay jaw ablaay jaw chimère moo jur maxtaar jaw ak jibi jaw moo occupé rang yu nekk ci réew mi ci ministre ci euh, député ci directeur de euh, impôts et domaines ba mu doon nekk maire Ndar ba léegi defe naa mooy maire honoraire bu Ndar Jibi Jaw si maire mooy bàyyi ñoom Koko Jaw Bébé Jaw Abi Jaw ñooñu ngay dégg danaa ñëw léegi ci galas bu ñu bokk léegi boo jóge naa ci Marianne maa ngi ñëw ci janoor ma bokk ak Marianne di seexam janoor ñetti doom la jur mbir sëñ Ibra nii rek la ma mën a demee dafa alaa ndare ndax li tax mu alaa ndare danañ ci ñëw ci kanam sëriñ Ibra as yow ma Ashura la la génne àddina mais le 4 septembre 1987 ci 2 heures du matin ci la génn àddina. kon le 4 septembre ci 2 heures du matin ñuy tox di waxtaani mbiram kon mbiram dafa alaa ndare inscrit janoo ñetti doom la am aana ñaaña ak fara ñu leen daan dàkkante leen maxa ñu naan aana maxa fara maxa ak ñaaña maxa fara maxa moo jur ñu déglu faramaxa moo jur Abibullahi Kamara ak Ahmed Saloum Kamara Ahmed Saloum Kara Kamara moo jur Binta Max Kamara kooku moo jur Ndey Amsatu Ñaŋ Faramaha moo jur ñaaña booy ak awa booy foofu lañu bokkee Galas Kantoom ñaaña moo jur Marema Njaay mu jur Ismaïla saar Omar Sarr ak Serigne Ibrahima Mbacke Mbacke Ndar mi ñuy waxtaane ñaar ñooñ ñooy janoor ak Mariama kon ku ci ndeyewul fii bàyyi nga ca te noonu ñu tekkee ci àddina noonu lañ jàngewoon woon alxuraan ba mokkal ko ndax yàlla dafa dimbali waa Ndar ci mën a boole alxuraan ak tubaab moo tax ñi ci bokk ñépp dañuy mën alxuraan tekki ci seen àddina boo delloo ginnaaw tuuti nga ñëw ci génn góor gu juddoo door muy ku ñu wax njaay saar podoor moo doon tundub xam-xam ndax elage omar alwar la jóge ci podoor la bopp mam mara mbacke mi ngi jóge dëkk bu naan abdallah ci la bopp mam ousmane si mi ngi jóge suyuma ci tundub podoor la bopp njaay saar juddoo podoor ñëw ndar njabootam ne fi baayam nekk fii baayam tuddoon suyuuti te képp ku jàng ak jalaaluddin suyuuti képp ku jàng kuy jàng tafsir di nga xam ni ku tuddee sa doom suyuuti ku jàng jalaalay ni sëriñ Zeyn nii du ma du weddi ku jàng jalaalay ni di nga xam kan mooy suyuuti bàyyi Ndiaye Sarr suyuuti la tuddoon mu amoon xam-xam bu bari bàyyi këram fii dellu Podor di liggéey doon ab traitant am fa xaalis bu bari ndax booba société bi naan société des agricultures trent 38 actionnaire la amoon moom rek moo ci doon nit ku ñuul mu mbubboo xam-xamam nag du ko ware ba bis Podor am atteb diine atteb charia boo xam ni ñëpp dañ cee lont kenn mënu ko tekki ndax dañ doon foo yoo xam ni mooy fow bant yi nga xam ni naar yi dañ ko doon foowee di yëngal bant di fecc bant ba rëcc am ci kum dal mu dal ko ci loos kooku faatu xamuñu ban àtte la ñuy jël ndax tey ko ñu ciy werante ba mu jig ñu ne commandant de cercle bi am na góor gu fi nekk ab traitant la mais ku bari xam-xam la nañ ko laaj lan la ci yoon wax ba ñu woowee Njaay Saar mu ne kan moo joxe ndigalu po bi ñu ne ko commandant de cercle bi mu ne ko yow day yow la yoon dal dogalu bu yàlla la waaye yow mi yow yaay dédommagé ki ñu rey fit boobu mu ko waxee ak xam-xam boobu mu ko waxee ci la commandant de cercle daal di bind gouverneur général ne ko dama bëgg nga def décret nome Ndiaye saar assesseur euh, kadi tribunal musulman bu Ndar fa lañ ko daal di nome bañ ko ko nommé dafa bañ ca njëlbéen ga ñu topp ko di ko topp ba mu nangu mu nekk assesseuru Ndiaye Anne Bobo mo nekkoon kaddi bu ndar muy 1875 Ndiaye aan nekk fa bi 1879 mu faatu Boel El Mogdad nekk Kadi, tribunal musulman bu ndar sar Sar ñëw nekkat